Club Diofior baa ngi noonu de Diofior Doudou Sané mbër maa ngi lay ziar mbaa yaa ngi si jàmm. waaw sant borom a baax naka nga ñëwee Diourbel gis nañ sànq ni ngeen entamé première euh, première partie yi macha allah mu mel ni Kaolack Kaolack ngeen amoon ñëpp doon xaar seen seen seen match ak Kaolack Fatick Kaolack. waaw Fatick Kaolack. mbiru yàlla ñaar ay favori ngeen ci euh, compétition bi. mais compétition man damaa jàpp ne compétition amul favori quoi affaire bi mbiru yàlla la yàlla bu dogalee da ngay gagné da ngay mais ñun Fatick ñëw ñu pour pour euh, ñàkk a gagné gagné kese moo ñu indi. gagné kese leen billaahi koy may. jom fu lak fayda te fees na fi day tuuru. Ponkal yaa ngi fi de Serigne Ndiaye waay ay Serigne Ndiaye lan. du saane nga wax de. Ablaye Ndiaye ngi fi de ragalul dara barki sëñ Fallou. booy faye ngi fi bu ma namee ragal centimètre mbër. barke sëñ Fallou ma tekki sama ngemb jox ko keneen ma dem bilaahi ragal <laughs> yëpp sa mbokk la man nag damaa yaru si bëre damaa yàgg a bëre bilaahi damaa tarbiwul si lamb yi. naa la jof yor. waa gis nga. ca mbaar ma. waa gis nga noonu la sëñ Fallou. yàlla loolu la nga ne objectif bi ñëw pour jël drapeau bi la mais bul fàtte ne kaw Jurbel moo ko jëlee woon Kaolack te moo organisé est-ce que dina nangu mu génn. non lu ci kanam rawu li bot nañu bàyyi ba kanam rek ndax dinañ ko nangu wala duñ ko nangu. mais Fatick moom dañuy gagné. sa diggante ak ak ak sa naataango yi ñoom Serigne Ndiaye ñoom Ablaye Ndiaye ñoom booy fay ñoom gañ Sène sa diggante ak ñoom. non jaamu rek liggéey bi moo ñu boole rek bu jeexee jeex na tàkk waaw. mais ngeen dajee ci géew bi. non dañuy reyante. da ngeen reyante. day métti tar. mbër ci kanam. waaw Sëñ Fallou. neex na jaajëf yàlla joof yor ay ca mbër. ziar naa la bu baax a baax mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. naka naka affaire yi mi ngi baax fi mu toll. waaw waaw ñu sant yàlla. seen seen ak euh, Kaolack sànq metti na de. waaw waaw waaw rek waaw xam nga rek làmb la rek ay naataango lañ di bëre voilà. démb naa la nga ne ma dañoo jël si drapeau bi. waaw ba tey sax. loolu ñu fi indi incha allah. mais bu leen fàtte ne Dakar a ngi fi ñoom Serigne Ndiaye. waaw dara ñooñu ñoom nga wax mais ñun man ñun suñu bopp laa gis de wax dëgg yàlla. seen équipe bi nga ci yaakaar. suñu équipe am naa si yaakaar ñoom laa gën a wóolu ko sama bopp sax. Ah wax dëgg yàlla. waaw. looy wax euh, sa sa fans yi nekk euh, di la seetaan. waaw di leen baalu àq rek xam na tamit njuumte du ñàkk si aar bi xam nga ñun ñëpp ay ay mbër lañ dañuy foo dañuy bëre mais nag wax dëgg yàlla ñun dañuy bëre ba daanu dañuy bëre ba daan tamit lu am rek ñu xam ne suñu borom la. mais diggante ak 80 sa diggante yi gis naa fi Dibakor Sagne. waaw ah. gis naa fi nga xamante ne mooy Tony Junior. Uh-huh. yeneen xale yi nga xamante ne bi yaa ngeen a mbëkkante ci àll bi. Mm-hmm. waaw dara bëri rek incha allah drapeau mooy li ma la waxoon démb rek dañuy ñibbeeg moom incha allah moom rek moo ñu fi indi. li ci kanam rawul li bët. rawul li bët ñu yónni yàgg. Euh, ngañ seen bu Kaolack Ndangaan mbër maa ngi lay ziar Johnson. waaye naa yus. bëgg nga waar waaye naa yus cool. Euh, yaa ngi Jurbel. waaw gis nga maa maa ngi Jurbel nii waaw. waa Kaolack. waaw. fan ngeen toll. ñu naa. am nañ jàll nañu léegi daal. jàll ngeen léegi. ñan war a compétir fi mu toll nii. Hmm. fan la sax. <laughs> jigéen si loolu. waaw. mais poule bi ngeen nekk poule bi ngeen nekk métti na de seen première seen première match suñu bool leen ak waa Fatick. Mhm. non loolu méttiwul méttiwul de. ñooñu moom ngeen yaakaar ne di ngeen génn deuxième tour. ah bëgg nañ ko de waaw. naka ngeen waajee. waa gis nga waaj nañ lépp xam nga lu des moom nañ ko bàyyi te loxo yàlla quoi. Mhm. ñu gis ak Doudou ngeen bërë bërë bu métti. Mhm. gis nga noonu la loolu yàlla dogaloon. mu am ci non loolu la yàlla dogaloon mm-hmm.